cant ak ngërëm ñel sa suné l'actualité fi nga xamante rek mo mo di Xibaar TV HD li gëna fess ci xët ci yéenekaay ñu koy défé sa suné l'actualité phare à la une de nos jours du ñu daal di xëyee tey li gëna fess fës dañ koy doré nak ak journaux yi nga xamante sa suné su ne ñoo ñuy xol li gëna fess lu ci melni l'observateur l'observateur daal di dikkeeg li nga xamante rek mo mo di rebond euh, 450 milliards levé pour combler le déficit budgétaire de 840 milliards francs CFA Mon la opération prévue dans la loi des finances a été votée par l'Assemblée nationale mom moko ko feussal mu nek nak lo xamantene rek gi actualité au Sénégal ca ga directeur général de la police nationale la vie policier de Mamsé Seydou Ndour itam ña ngi ko cay révélé gannaaw ga naka ni démb fele ci Sikat mu dernière journée boobee nga xamantene lañu la dialogue national yi nga xamantene mo jëm ci justice nouvelle mesure de la commission européenne l'envol des frais de visage Schengen ña ko ci daal di fësal ci li nga rek l'observateur libération des cartes. une justice sans influence est une justice affaiblie ki koy xamle di Ousmane Diagne ministre de la justice ministre des gardes garde des sceaux moo koy daal di xamle ci li nga xamante rek moom moo jëm ci wàllum justice démb nag yëkkati ay kàddu yu am solo fa li nga xamante ne moom moo di ca jam ñaajoo ci li nga xamante rek moom moo di àq ak yelleef waaye itam melokaan gu yees ci wàllum police naka lañ war a mën a doxalee moom ousmane diagne jëwriñ bi nga xamante rek moom lañ denk bi lee wàllu daal na ci yëkkati ay jéego yu am solo libération daal restitution de la TVA empoché bras de fer entre le fisc et la BDK nag ay banque la yo xamante rek jamono gi laale wu ñu ñoom ñaar ndaxte lu jëm ci walum impôt yi nga xamante rek ñu ngi leen koy daal taxer taxé dayo plainte pour l'utilisation frauduleuse de son image Hadilam. Habib Lam réclame dix milliards de francs fa à Expresso Habib Lam bu ñu ko waxee mu nekk ab influenceur boo xamante ne yàgg naa defal Expresso ay publicité tey mu mel ne seen diggante xeeñatul neex ba tax na lu tokk ci fukki milliards moom influence influenceur bi moom lay daal di réclamer Vox Populi daal 4 le Sénégal lève 450 milliards de francs CFA sur le marché des bonnes. finance internationale bonne nouvelle pour les finances publiques à quelques jours de la tabaski Mounek rek Vox Populi ba légui adresse adresse 51 question écrite au gouvernement de Sonko moom lay daal fin des travaux des assises Nakani ni ce que devra ce que devra être la nouvelle justice sénégalaise mu nekk ay ponk yoo xamante le reporter di Bamba Kassé moom mi nga xamante ne rek il est nekkoon di ponk yu ama am solo recommandation yi ak coppite yi nga la justice sénégalaise war am moom Bamba Kassé daal dina andi ay leeral yu ama am solo fële démb ca engagement du ministre de la justice de Ousmane Diagne tam amna gana solo ganna ba mu ay ponko ki nga xamanténi rek mom modi di Ba itam ma ngi des sénégalais n'ont pas confiance à la justice mu nek lo xamanténi actualité Sénégal la euh, justice bu yes la dadi sako les échos d'Adi dicat bras de fer à Wakam pour un titre foncier Jaraf Youssou face à face à nouveau à la collectivité lébu coow li del na cour fële nga xamante ne rek moom moo di ca cour suprême naka ni suba ci alxemes li nga xamante ne rek moo di jaraaf Youssou Ndoye euh, condamné nañ ko nag ci li nga xamante ne en première instance ci li nga xam ne moo jëm ci wàllul coowal suuf fële nga xamante ne moom moo di Ngor ak Wakaam ku ko xam-xam ne euh, coowal suuf du ne guleet foofee nga xamante ne moom moo di ca bile mbir détournement et transport litige présumé des minières itam ña ngi ko cay daal di waxtaanee mu nekk rek ay ponk yu am solo yoo xam Le ci yenn gox les Quotidien réforme et modernisation de la justice le verdict des assises nag ni la nga réforme et modernisation de la justice sénégalaise mu nekkoon quatrième édition yu am solo ñu waaye itam jàngat gi yaatu lool ba fële nga xamante ne rek démb moom moo di uh, ca jam ñaajo li nga xamante ne rek yëkkati nañ ko fa jéggi na dayoo rawatina ki nga xamante ne moom moo di le ministre de la justice Ousmane Diagne yëkkati yi les kaddu yu am solo daal di ko ciy renforcer waaye itam la ñuy sàkk wala ñoom la ñuy wax wala naam seen mbebeet mbébét lenn képp kottu la li nga xamante ne rek moo fi daal di ruusandi ñu daal di koy jébbal ki nga xamante ni moom moo di njiitu réew mu Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci li nga xamante ne rek jot nañ koo tëgg ci bile assise duñ ci yem waaye itam ab réforme ci nu mu gën a a gaawee ab coppiteg modernisation ci ni mu gën a gaawee ci li ni mel ba tax na rek loolu la ñuy daal di a askanu Sénégal di ko sàkku ba tey Sud Quotidien daal di kat direction du PDS Karim Wade corps a son opération de conquête itam ña ngi ko cay daal di wax le ci li nga xamante ne rek moo dem ci wàllum PDS gannaaw ki nga xamante ne rek bu ñu ne PDS xel yëpp dem ci moom mu di Woré Sarr daal di nay teg ndombal tànk ki ca fa ñi naan Mame Diarra Fam dem nag demul ak lu ci mën ci am rek jéggi na dayo lool dette fiscale les patrons de presse non non payeurs dans la tourmente 91 euh, milliards de francs CFA Maïmouna 45 euh, euh, millions francs CFA des médias Bougane Gueye 2 milliards de dettes fiscales contestées par voie judiciaire El Hadj patron au patron de presse apprenez à payer les impôts moom a berné les patrons de presse commandeur mu doon ay kaddu yoo xam ne ñu ngi ko ci daal di yëkkati nag jamono gi mu mel ni rek coppite wala koom-koom gu takko gi nga xamante ne ci biir yor-yor patron de presse Madiambal Diagne Maimouna Ndour Faye Bougane Gueye Dany amel nañ ko El Hadji Ndiaye nee na na askanu Sénégal wala patron de presse di jàng di fay impôt mu nekk lu jéggi dayo loo xamante ne yor-yor moom la daal di xëyee direct news daal di dikkaat ci visite des établissements scolaire euh, ministre boobee nga xamante ne rek moo di Moustapha Guirassi moom nag daal dinay def euh, retour fële nga xamante ne rek moo di ci l'école ba mu jàngee nag mu nekk jéego yu am solo yoo xamante ne rek daal fay delluwaat mu nekk ay ponk yoo xamante ne nit ñaa ngi koy daal di rafetlu ba tey rek dañuy daal di wéy le soleil daal di dikkat clôture des assises de la justice des consensus forts et des désaccords nag la daal di xëyee ci li nga xamante ne rek moom moo di euh, bile rencontre boobee nga xamante ne amoon na fële ca jam ñaajo réforme et modernisation de la justice

tek ay yile réforme Walf Quotidien dal di fisc inspection du travail euh, compte bloqué itam dal nañ ko ci wax presse sous pression nak lay dal di wax néna ko presse sous pression mu di dal yi nga xam ñu ngi leen koy teg censure yi nga xamante la presse sénégalaise euh, mu ngi koy euh, subir way itam note gi nga xamante ne rek amna ci mu doon lu jéggi day lo xamante rek askanu Sénégal ñi ngi koy ñaawlu taskatu xibaar yi ñi ngi koy ñaawlu jëmale ko rek ci justice bi ku wax nak sudul nonu ñu dal di lay note dal di lay buntu xatal tëj la ci kasso bi ba tax ne rek jamono gi fiscal inspection du travail compte bloqué yooyu yëpp Walf Quotidien mi ngi koy daal di leral ñu gën ko wara mëna faram fàccee ba tey ak yelef mëna am ci presse bi ku ci nekk rek war gis sa bop bi le jour ba di carte présent ou non présent du premier ministre et le président de la république la patate chaude à Diomaye naam teewul ci li nga xamante ni rek moom moo eh, bilé dialogue waye teewul rek daal dinañ koy jox ab lenge jox ko ab bataxol jox ko ab yobbal ci li nga xamante demb mo moo fulé nga xamante mom modi ci dossier revu ba tey ci li nga xamante ne mooy bis bi la jour Sall air après le salaire lay daal di waxtaanee rek mu doon li nga xam ne marchand ambulant des salariés viennent parfois ña ngi ko cay daal di waxtaanee mu nekk ay ponk yu ama ama ama am solo yoo xamante ne kanu Sénégal rek ñu ngi ko ci daal di fësal ci li nga xamante ne moo jëm ci bile période période tabaski waaye itam mu nekk loo xamante ne rek ñenn ci bari jotuñu seen ndàmpaañ mu di seen salaire mu nekk lu jéggi dayo loo xamante ne bés bi le jour tey moom la daal di dikkee enquête pour démission tacte du président Diomaye premier dossier pour les sept sages ñoo ngi ko cay daal di xale xamle Amadou Lamine Sall itam ma ngi cay daal di yëkkati ay jéego yu ama ama ama am solo ba tey dañ koy doore stade quotidien daal di dikkaat que Sénégal sans Mané forfait contre RDC et Mauritanie Sadio Mané du ca laale du ca football du ca taqe nag Sénégal ban équipe la fas yéene am ci les euh, match Congo RDC ak ki nga xamante ne moo di la Mauritanie ak lu ci mën ci am absence su Sadio Mané dina nekk pois bu lourd boo xam ne dina affecté yi les daan Dikata, quart de finale coupe du jaraaf s'impose face au Casa Sport mu nekk ay ndaw yoo xamante Ligue 1 Lamine Camara nominé pour trophée petit de la saison Mounek nekk loo ne solo waaye jamono gi lu verdict bi neex neex neex neex ba ngeen fàtte ni jamono gi gu takku 450 milliards élevés pour combler le déficit budgétaire ba tax na rek njiitu réew mi